أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له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 وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yu baax yi nga xam ne yéen a ngi jàkkaarloog seen télévision Futurs Médias fu ngeen mën nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew maa ngi leen di wax kàddu gi nga xam ne moom la yàlla sopp ci nuyoo te mooy assalaamu jàmm aleykum ci seen kaw wa rahmatuhu ak yërmandeem xam naa maa ngi leen di ñaan ngeen delloo ma pay gi pour ñun ñëpp ñu bénéficier ci yiw googu nga xam ne yàlla borom bi subhanahu wa taala jox na ko xeetu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko defee ñu leen di ziyaara di leen balu àq di leen baal àq di ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla nañu baal suñu bàkkaar yépp di nuyu suñu kilifa diine yi kon niñ ko baaxoo def di leen jox suñu loxoy xol yu ànd ak sukk ba ci suuf di leen màggal di leen ñaanal borom bi subhanahu wa yàlla leen fi yàlla bàyyi ñu yàgg ñoo jiite ba ci kanam a kanam ndax ñoom ñooy done ñooy done sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa ci kaw suuf di ñaanal suñu ay waajur yu jigéen ak yu góor di ñaanal suñu ay borom kër di ñaanal suñu njaboot gi nag góor ak jigéen tout tànk yi ba ñuy sëg a judd bàyyiwuñu kenn di ziyaare waa réew mi di leen ndokkeel ci gan yi nga xam ne ñoo ko am ñuy ñaanal yàlla gan yooyu tamit yàlla na ñu ñëw ak jàmm ñibbeeg jàmm ak salaam tere bañ leen a kokk xoos lu toll ni weewu ginaar ñu ñibbi ak jàmm seen njaboot di ziyaare yi tamit ñi nga xam ne nag ñooy suñu ay soppey bopp toog fi ñu toog moo xam fu mu mënti doon jàkkaarloo ak seen télévision Futurs Médias di seetu askan wi moo xam ñu nekk ci biir kër yi moo xam ñi nekk ci biir hôpitaux yi ak ñi nekk ci oto yi ndax xam ngeen ne da koy jàpp itam ci seeni rajo moo xam ñi nga xam ne ñu ngi ci bërëb yu lëndëm yi ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla tawfiq mooy yàlla yàlla dotti jàmm ci suñu réew su ko defee tey nag ah ñu fàttali rekk fàttali leen ndax yàlla borom bi subhanahu wa taala dafa yàgg a wax ne ah lii ngeen xam ne moom laa leen jox muy alquranul karim dee leen ci fàttalante ndax fàttalikat mooy tax ki fàtte woon fàttaliku waaye itam ki xamul woon xam su ko defee ñu leen di fàttali na keroog waxtaan nañu si àjjuma loolu jàngalekat yi xam nañ ko xam naa ne mooy li ñuy wax mu muraaja révision ñu dellu si ci wax ne yàlla ñu yàlla defal jàmm ji ñu fi doon waxtaane di sant nag borom bi ndax keroog heure bii fit yi xawoon naa jax-jaxi waaye yàlla sotti ci ndox mu sedd ndax waxoon naa leen ne nii climat bi changé incha allahu taala jàmm rek mooy am te itam jàmm rek moo ci mujj ndax kat jaboot jàmm rek ko jëkk su ko defee nag tey ah ci waxtaan wi incha allahu taala bu ñu yàlla mayee bëgg naa ñu indi baaxe leen daal loo xam ne ay kilifa wala kilifa gi gën a mag ci kaw suuf moom moo ñu ko baaxee ñu bind ko muy suñu sang bi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa mu joxoon ko njaboot gi xam ngeen ne ngi jëm ci fan yu néew ci màggalu Tuuba mais lan la ñooñu assurance bi ñu amoon ba tax ñu ñemee jàkkaarloo ku mel ni tubaab bi di boroom ndar wax ko lañ ko wax wan ko ne ko moomoo ndar ndax fi nga ko fekk fii yaa ngi ci nekkandi te booy demit fi nga koy bàyyi te muy dëgg loolu nag jàngat la boo xam ne adduna bi yëpp war nañoo xam ne kenn moomul dara lu nekk fi nga ko fekk booy dund yaa ngi ci bés boo wanee ginnaaw itam jeex na ñu ciy jaar rek xam naa ne comme niñ ko baaxoo defee ah xam ngeen ne adduna bi moom demal maa ngi ñëw la te li yàlla ne kullu nafsin zaiqatul maut ba kenn bu ñam dund dina ñam dee yàlla ñu yàlla may rek mu fekk ñu ci lu baax ndax yàlla bind na ku nekk bés bi ngay dem ndax mu ngi naan fa iza jaa ajaluha laa yastaxiru saa wala yastaqdimuun munoo koo weesu munoo demit te sa dem jotul kon ñu siy jaal di jaale suñu mbokku bopp Adja Fat Bintou Yafa nga xam ne mooy présidente mouvement des femmes CNTS bureau confédéral ci seen tour ak ci sama tour man mii yore commission pèlerinage foofu ci CNTS maa ngi jaale gorom boobu di shérif di borom këru princesse ca IPRES ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm yéegee ko àjjana ya gën a kawe di ko jaale waa juróom waa ñaari tali yëpp di ko jaale waa bureau confédéral di ko jaale waa mouvement des femmes di wax ajaat Adja Fat Bintou Yafa yàgg sa doom jooju yàlla na leen yàlla may xol yu ngeen ko muñe di ñaana Chérif moom yàlla bokk sa ñay wax naan yaa layta qawmi yaalamuuna bi ma gafara li rabbi wa jaalani min al mukramin aka neexoon tey yéen waa àdduna ngeen xam man yàlla taraanga bi ma defal loolu nag ki koy am mooy ki nga xam ne mu ngi jàppoon diineem jàppoon lu baax te wax dëgg yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu nit génnee àdduna dee leen feeñal ay mbaaxam ndax nit ñi kat malaaka yi dañuy ñëw seede yooyu dañ koy jël di ko remplir sa point yi manqué gis ngeen macha allahu taala keroog bi alaaji bàcc gajëg a génnee àdduna euh, mu Serigne Diop mu maam Awa Diop mu Yacine Diop keroog seede yooyu ku nekk tey keroog dañ ko mujj ñee fi mu tëdd kon yàlla ñu yàlla bu yaakaar tas tey nag ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy wax assurance xam ngeen su ma nee assurance ñëpp a ngi xalaat macha allahu taala sa oto bi nga yore fin bi nga dem assuré ko ñi di assuré seeni kër ñi di assuré seeni bien ñi di assuré sax seen jëmm ak seen bopp dem ci benn société fay ñu ne la fayal temps ak euh, bu accident amee ñu jox la nàngam ba xattaa sax ñun ñuy dem màkk dañuy wax dañuy assurer parce que loolu moo gën a wóor bu la fa dara jotee ñu am astuut boo feebaree ñu faj la mbiru àdduna la wàññiwul dara waaye nag ñun tey man tey damay ànd ak yéen ñu dem ci assureur bu mag boobu di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama nga xam ne yàlla moo ko jëloon nommé ko foofu ci bureau ba euh, bureau boobu mu ko nommé nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nit ki bala moo assuré àddunaam na assuré àllaaxiraam ndax kat dundu àdduna bi macha allahu yàggul waaye dundu ëllëg moo yàgg ndax boo seetee suñu maam aadama alayhi salaam ak maam xawaa ba ñu juree ba tey ñaata junniy junniy junniy junniy at la te ñoom ba ñu génnee àdduna ñu denc leen yonent bi rek léegi mu nekk mille ñaata mille six cent mille quatre cent trente six ca gàddaay gaag léegi moom yonent bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam barki démb rek la <coughs> pardon ku nekk bu xoolee sa yaay wala sa papa wala ñu xool demu Seex Ahmadou Bamba radiyallahu taala si géej géej léegi ñaata at la ñaata édition màggal la ñu am kon nga xam ne allaaxira moo yàgg mais àdduna yàggul te li àdduna di yàgga di yàgg di dund doomu aadama moo gën a yàgg di ndax dund goo xam ne xeet woo xam ne kii suñu kilifa nee nañu lu ëpp si ñun duñu passé juróom-ñaar fukki at wala duñ ko matal te xam ngeen léegi soixante-dix ans du dara xoolal léegi ñiy retraité daanaka ay xale yu ndaw la ñuy doon koo gëj a gis soo ko gisee mu ne dem naa retraite toog naa lan la préparé IPRES la doon versé foo ndeysaan xaw ma nu ñu koy tuddeeti noonu foo yooyu nga xam ne ñu ngi koy couper sa salaire pour boo amee cinquante cinq boo demee chaque mois ñu ñamal la ci tuuti en attendant ngay yàlla na yéex ngay wuyu ji sa borom yonent bi sallallahu alayhi wa nit ki war naa assurer li ñuy wax euh, boppam ci àdduna waaye assurer boppam itam ci àllaaxira loolu nag assurance boobu waxoon naa la keroog ne wax. dañ koy segg bala moo génn ndax boo defee accident ci sa yaram mun nañ ko yóbbu hôpital réparé la bu dee dafa damm bu dee sa bët dafa tuuru xataa sax bu amee cër bu wàññeeku ci sa yaram macha allahu taala mun nañ la koo fajal waaye accident wu gémmiñ moo garaaw moo tax ñu ne yonent bi doon na wax ne nit ki balaa wax na tourné làmmiñam soixante-dix fois soog a wax ndax wax naa leen diine lislaam bii wax moo la ciy dugal wax moo la ciy génne wax mooy tax nga dugg ad àjjana wax mooy tax nga dugg safara après jëf soog a ñëw yal nañ ci yàlla musal kon nekkate làmmiñ dañ koy bàyyi xel moo tax yonent bi ne nag léegi am na assurance bu njëkk boo xam ne mooy lay assurer sa dund am na assurance bu ñaareel bi mooy bi nga xam ne moo lay assureur sa yow doomu aadama ak ñetteel bi nga xam ne nag moo lay setal ba tax boo demee sa bàmmeel ah macha allahu taala yàlla def ko mu nekk rawdatun min riyadil janna bañ koo def xufratan min xufari naar yàlla def ko mu nekk eh, macha allahu taala benn jardin ci biir àjjana sa cimetière yii tey boo demee euh, Yoff walla fu mu mënti doon ci àdduna bi macha allahu taala baqiya nag moom lépp ñoom jardin la ci biir àjjana mooy fële nekk ca madinatul munawwara ak leen nit ci dëkk yi yàlla moo xam waaye yonent bi bii moom assuré na ko yeneen yi ci des it seeni boroom xëj na assuré nañ ko moom mu ne benn mu nekk jardin si biir àjjana walla mu nekk xur ci biir safara ñaar yi moo am ci biir bàmmeel moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nag képp koo xam ne yeewu nga nga julli suba gis ngeen julli suba ci waxtoom fa huwa fi zimmatillahi yow jour boobu assuré nga sa bopp dégg ngeen ma képp koo xam ne xëy nga fajar nga sangu ba set bu dee dangaa am janaaba bu dee amoo janaaba itam nga sangu ndax jullit an nazafatu minal iman set dafa bokk ci ngëm yàlla moo tax diine l'islam yépp yàlla daf ko euh, dësale set mooy sangu bala nga cee dugg ci lislaam mun ne la demal sangu booy sangu mu ne la raxasal sa jumbux ba ci sa óom soo paree mu ne la nga raxas sa ñaari loxo boo paree mu ne la nga lenqali sa gémmiñ ndax li nga doon wax li nga doon yàpp nit yi nga doon lekk nga dindi ko raxas ko ndax loo wax si ginnaaw nit lekk yàppam la yàlla mu ne la sikro soccul ba dindi yooyu ruusit yooyu na nga tudd sa nit ki ginnaawam te soo jàkkaarloo woon ak moom doo ko wax yaa ngi lekk yàppam si alquran mu ne la raxas ko sa bakkan la ca xeeñtu te waroo ko xeeñtu mu ne la raxas ko nga saraxndiku mu ne la raxasal sa kanam sa bët la nga xool te waroo ko xool muy lu xaraam mu ne la raxas ko ba mu set boo paree mu ne la raxasal sa loxo ba ci sa conc ndax loxo boobu li mu riisu li mu jël li mu laal te waru koo laal loolu yëpp ak bàkkaar yi la nga xam ne làmb na ko waru koo làmb loolu yëpp mu ne la raxas ko mu ne la nga masaa sa bopp lépp lu ci nekkoon ci ci bàkkaaru kaw ak suuf nga dindi ko masaa nopp yi nga xam ne moom nga doon déggee te du lépp nga war a déglu ndax jullit du lépp lay déglu ba pare nag mu ne la na nga raxas nag boole yépp sang ragg ba mu set boole bomb di raxas ba mu set sa côté ndeyjoor sa côté càmmoñ si kanam ak ci ginnaaw loolu boo juddoo dañ la ko war a defal comme booy génn àdduna dañ la koy defal comme booy ihram da koy def comme booy dugg ci diine lislaam itam da nga koy def kon loolu boo xëyee suba teel def ko ba pare macha allahu taala nag nga jàpp ndax bu fekkee jigéen moom sax mun na jóge ci cangaayu farataam dem julli ji ndax xëy na moom cëram ruqe na waaye bu dee góor su xawee boroosu cëram moom day jàppaat kon li gën baax rek donte ne cangaay li doy na waaye comme fadlu boo gis afdal am na ci kon yow jàppaatal soo jàppee ba pare nag nga génn bokk na ci assurance yi baat yooyu ngay wax dinañ ci dellu si su ko defee nga dem fekk ñu ne nga dégg comme bu dee fii ci senegal nga dégg sëy bilaalu koñ wala nga am téere boobu professeur Rawane defar wala ñu yónnee la ko ci sa portable muy heure julli yi minutes avant ñuy julli suba mooy rakaata fajiri ñaari rakaa fajiri yooyu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne rakaata fajiri xayrun min ad dunya fiha ñaari rakka fajar moo gën àdduna ak li ci biiram kon même tey su ma ne suñ ma ne woon kaay ñu jël la yóbbu la def la nga nekk président Amérique parce que defe naa mooy ki gën a puissance si àdduna bi gën a fort ñaari rakka fajar ñoo ko gën waxuma la nag ay ñoom président Makeek ay ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñooy ñi dëkk fii ci côté bi te fii ci Sénégal loolu sax nekk ministre walla nekk directeur général sax am pal la wala am nekk milliardaire loolu yëpp ñaari rakka fajara ko gën muy ñaari rakk yu oyof yoo xam ne daanaka faatiha ak saar bu gàtt gàtt nga ci tari am na ñu gën a bëri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ci jàng faatiha ak qul ya ayyuhal ak faatiha ak lixlaas mbokk julli di nga julli ñaari rakka yooyu yonent bi nee na commencé nga déposé fay yaa ngi toog ci kees gi nag di fay sa assureur boobu muy man te mooy loolu mooy nga julli ñaari rakkaal fajar di zikkar ci diggante ñaari yooyu wala nga jàng alquran ndax inna quraan alfajri kaana mahjura julli ñaari rakka euh, jul jàng alquranu kaana shahida julli jàng alquranu fajar seede la dalay seedeel ëllëg yowmal qiyaamati bu ñu seetoon lépp dara jagu ci alquran boobu day ñëw taxaw ne yàlla borom bi subhanahu wa taala maa ngi lay seedeel ne ah diw mii da doon jàng alquran fajr kon loolu rek safaa la boo xam ne mën na laa génne ci pax moo nekkoon bu fekkoon ne sa sa sa bàmmeel boobu dafa nar a nekk xur si biir safara yàlla mun na ko wëlbati def ko jardin ñu branché le directement àjjana kon mbokk yi seetaan ñu gis ne assureur boobu nee na yow yaa ngi ñëw di assuré si kon julli fajar ak julli ñaari rakaa kon bépp jeeg moo xam góor nga moo xam jigéen nga soo yeewoo te jógal gaaw nga julli ñaari rakaa yoo xam ne yàlla sellal moo tax jàngi xale yi taxul nga teel a yeewu liggéey ji taxul nga teel a yeewu ndax xam ngeen ne fii ci Sénégal bëri ñoo xam ne lundi ba samedi dañuy jóg fajar waaye du julli gee leen tax a jóg de liggéey yi bee leen tax a teel yeewu walla préparer xale yi ñu jàngi walla préparer la àllaaji bi mu ndekki dem liggéeyi waaye bu dee yow kese jaralu la ko da ngay tëdd bu dee ñuy ay ayloo bu ñu ayewulee du ñu jóg bu dee ñi nga xam ne liggéeyi ñu dañuy tëdd ba ay 9 heures 10 heures kooku nag day fekk malaayika bi indi woon wërsëg bi moom dem na yoonam ki doon jël si julli ki doon jël si dossier guddi bi itam di dem di ko classé ji ca lawxul mahfuz dem na yoonam ki xëy si itam fekk la ngay tëdd fooy jële yiw fooy jële tuyaaba fooy jële wërsëg kan ngay liggéey kan ngay am xéewal moo tax assurance bi nga xam ne yonent bi wax na la ko mooy bi si njëkk mooy mu ne ngay salaatu subhi man salla subha fa huwa fi zimmati llah képp koo xam ne julli nga suba assuré na la ne yow yaa ngi nekk ci kiiraayu borom bi subhanahu wa ñaareel bi mooy bi nga jullee ba pare nga jàng lan ayatul kursi ayatul kursi boobu nga xam ne mooy aaya bi gën a tedd ci alquran mu nekk ci suratul baqar te ñun ñëpp ñu miin ko ñu bari ci àdduna bi tey fii ci ah, jaboot gi ñu bari mokkal nañ ko muy allahu la ilaha illa huwa alxayul qayyum boobu ñuy wax ila axiril aaya nga xam ne ah yàlla borom bi subhanahu wa taala na man qaraa ayatul kursi duburu kull salatin maktuba lam yamnaahu min duxulil jannati illa an yamuut yonente maa ngi lay jox maa ngi lay assurer lu lay dugal àjjana sa laissez-passer bi fekk demoo màkk taxawoo arafat xëy na sax yu bëri defoo ko waaye julli nga rek ba pare boo nee asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum bi ni nga koy waxe gestu waxaat aleykum gestu nee na soo paree rek nga jàng allahuma anta salaamu boobu nga xam ne mooy indi jàmm ci réew mi te jàmm moo wax naa dëkk boo xam ne ñoo ngi ci jàmm dara jagul ku nekk yaa ngi ak problème fees dell lépp ngi jafe bés bu fi leneen ñëwee lu dul jàmm dinañ xam ne lu waay mën am lu nekk jàmm ko gën yàlla nañu yàlla musal ci fitna ndax kat yonent bi alquran nee na al fitnatu ashaddu min al qatli gis nga fitna moo gën a bon guerre kon nag fitna jii ñuy bëgg yee ci réew mi rawatina nag suñu kilifa yi nga xam ne dañoo am yaakaar ci ñoom dañoo am cofeel ci ñoom dañoo am soppeel ci ñoom ñu ngi leen di ñaan tey réew mi am na leneen luñ leen élire woon bu dul ñuy fitnante ku nekk di sànni sa moroom ay kàddu lu ñagas ñun loolu soxlawuñ ko de ñun dañ leen a pour ñu yombalal ñu électricité bi ñu toppatool ñu njàngum xale yi ñu toppatool ñu paj mi ñu toppatool ñu réew mi mu jëm kanam naat ba ñu mel ni suñu moroom ñu réew yeneen yi waaye faluñu leen woon pour ñu nekk ku nekk di attaquer sa moroom pour bëgg lu jote kii naan la dinaa la def lii kii naan dinaa la def lii nauzu billah wala iyaazu billah moo tax nañ leen delluwaat ci allahuma anta alsalaamu wa minka alsalaamu wa ilayka yaudu alsalaamu fa hayyina ya rabbana bissalaami wa adxilna aljannata daaraka daara alsalaam tabaraka rabbana wa taalayta ya zal jalali wal ikram e eh waay mbokki julliti yàlla borom bi subhanahu wa taala ba muy nuy saydatuna xadija baat yi la jëloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy allahuma anta salaam yow yàlla yow yaay jàmm wa ilayka salaamu jàmm ci yow lay dellu kon yàlla nga ñu dundal ci jàmm yow mi nga xam ne yaa màgg yow mi nga xam ne yaa tedd yow mi nga xam ne yaay dundal yaay rey eewaay eh samba baat yi la yàlla ne saa yu ngeen jullee dee leen ko wax ma assurer leen seen bës su ngeen génnee àdduna ngeen boole ci saa yu ngeen pare allahu laa ilaha illa huwa alxayul qayum yàlla sax tëkkuwaate wuñu fu mu tëkkoo indil nañu baal bu nee aafiru zan bi waqaabili tawba saridul iqaab mais gis nga du njëkk sax tëkku yàlla ci borom bi subhanahu wa taala bëggul tëkku danaan kuy baale laa kuy nangu ku tuub laa ah attention de sama mbugal tar na kon ndekete jullit bi am na foo xam ne bu fa tolloo day delloo boppam si yàlla borom bi subhanahu wa taala yonent bi ne nag na assureur bi gën a mag mooy yàlla borom bi subhanahu wa taala nee na soo bëggee mu assureur la sa àjjana ëllëg yowmal qiyaamati saa yoo jullee ba pare na nga jàng ayatul kursi kon loolu dañuy wax ne képp koo xam ne mënu ko woon na dem ci daara yi wuti ku ko jàngal ayatul kursi yi mu mokkal ko su mokkalee ayatul kursi yi boobu mooy ñaareel li nga xam ne dara yonent bi nee na lam yamnaahu min duxulil jannati illa al xam nga lan moo la teree dem àjjana dee yàlla na yéex kon ndekete nit ki ayatul kursi yi daanaka farata pour mu mokkal ko ndax su ko mokkalee dara du ko teree te muy julli julli juróom yi parce que base ñaan ak ñaanlu ak nangu ay kii sag baax na de ay assurance yi ma yore nii ndax waxoon naa leen diggoon naa leen fi kiis mais taseeg mu taseeg feebar bi nga xam ne comme dañ ko doon bind ci ay àlluwa di ko fomp ñu am ci tuuti ragal ci développement wu ah, macha allah feebar boobu nga xam ne yàlla jeexal na ko fi ndax incha allahu taala day jeex tàkk ndax waxoon naa leen feebar bu nekk yàlla bind na lu koy faj ñi ko xam xam nañ ko ñi ko xamul xamuñu ko moo tax jullit warul tiit ci benn feebar nii sida même sida garabam day ñëw ndax yonent bi wama yantiqu anil hawa Ebola bi garabam day ñëw wama yantiqu anil hawa Sénégal faj nañ fi ku ko am mu wér ak jàmm tey àdduna bi yëpp ñu ngi wax ne alhamdulilah trouvé nañu vaccin bi mais vaccin bi gën a pur nag mooy set vaccin bi gën a pur mooy dund sunna gis nga yàlla daf ne waxoon ne nuyoo góor ak jigéen ñi moytu leen ko xam ngeen ne Ebola bi tax na ñu bëri nangootuñoo joxe loxo kon ba tey rek ñu ngi dellu si ci njàngale mu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ak li yàlla santaane kon deuxième assur assurance bi mooy saa yoo jullee nga jàng aayatul kursi yàlla nee na jox naa la sa assurance que ne yow di nga dugg àjjana at taminu salis troisième bi nag mooy ban sayidu duaa u sayidul istigfaar ñaan sangu njéggal yi xam nga njéggal dafa am sangu njéggal yi nag am na sangu njéggal yi nag mooy ngay wax toujours astaghfirullah lu baax la astaghfirullah astaghfirullah xam nga yàlla indi na ko ci aaya alquran boo xam ne dinañ ci dellu siwaat waaye mu ngi naa allahuma anta rabbi la ilaha illa ant xalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waadika ma stataatu auzu bika min charri ma sanaatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zanbi fa'fir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant xam naa yaa ngi naan ma lii est-ce que guddul guddul togg ceebu jën moo ko gën a jafe ndugg suppu kànja moo ko gën a jafe xëy sañse sol lu baax moo ko gën a jafe ñaan bi ma wax yomb na parce yàlla ak yonentam seeni baat ndax yonent bi dañ koo defoon dañ koo joxoon li ñuy wax jawaamiul kalim ñaan bi ma wax mooy allahuma anta rabbi yàlla yow sa yaay sama boroom allahuma yow sama boroom anta yow mi rabbi yaa ma moom xalaqta nii yaa ma bind wa ana abduka man sa jaam laa kon ñun ñëpp jaamu yàlla lañu kon sa nga amu fi ndekete rëy dóor sa dënn maay diw dinaa def diw amul solo yàlla nee na boobu bëgguma ko ndax rëy sama mbubb la te ku ko sol ma futti la kon ndekete nit du dóor dënnam baaxul nañ nañ ko daw wa ana ahdika wa waadika mastataatu yow nag sa ahd mooy euh, kóllëre gi nga ñu jox ak dig bi nga ñu dig dinañ ci def lu ñu àttan mastataatu nit nag dafa war a jóge ci fattaqullaha mastataatum di dem ci fattaqullaa xaqa yi boo fa jógee yàlla ne nga wax ko ne auzu bika min charri ma sanaatu yow yàlla maa ngi lay jëggalu sama jëf-jëf yu ñaaw xam nga ku nekk xam nga li ngay jëf la ca rafet ak la ca ñaaw ku nekk soo toogee conscience sa conscience mooy sa damir xam nga li ngay def la ca baax ak la ca bon waaye nag li ñuy wax ruq mën a kan nit ku nekk war na ko di ko def mu ne waa wa auzu bika min sarri ma sar abu laka bi ni'matika alayya xoolal xéewal yi la yàlla defal ngay noyyi fayoo facture ngay xool fayoo facture ngay wax fayoo facture imaginer que bu doon ne wax ji facture la kon jëw dootul amati fen dootul amati rambaaj dootul amati bu doon ne li ñuy noyyi dañ koy fay di nga gis kuy bloqué di bloqué ba faf jàllaale bu doon ne xool bi li ñu xool yépp borom bi subhanahu wa taala daf ñuy yónnee facture kon billaay kenn dootul xoolati jabaru jàmbur wala doomu jàmbur wala jëkkëru jàmbur mais loolu yépp yàlla jox la ko gratuitement wa in tauddu ni'matallahi lan aw la bu ñu doon lim xéewal yi ñu yàlla defal def ñu rek ñu nekk nit munoon ñoo def ñu nekk leneen ak leneen ak leneen waaye yàlla ne wala qad karam naa bani aadama waaw su ko defee yàlla borom bi subhanahu wa taala daal di ñuy may nag ñu nekk ñi gën a tedd ci kaw suuf muy ikraam doomu aad bani aadama kon lii ma leen di wax léegi mooy nga wax ne yàlla kon xéewal bii nga ma jox maa ngi lay ñaan nga jéggal ma sama bàkkaar fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta yow rek yaay baale bàkkaar yi koo munti tudd turam ne ko maa ngi sàkku si yow njéggal yaa ngi nax sa bopp yàlla rek mooy mën a baale bàkkaar kon gis ngeen ñetti assurance yi ma leen jox muy julli suba jàng ayatul kursiyu ak jàng sayidul istighfar ku ko munul nag dangay dem ci jàngalekat yi ñu mel ni ñoom oustaz Fat Kan ñoom oustaz Fat Kayre ñoom ay Ayda Mbaye ñoom da Kase Thiès bu dee cees nga nekk bu dee Ndar nga dem nga dem si jàngalekatu alquran yu mag yooyu fa nekk ñoom euh, macha allahu taala ñoom lii Lidia Sadio namm naa la maa ngi lay nuyu di la ziar waaye nag bu dee fii la ci Dakar itam nga dem ci daara yi lu mel ni daara imam Ban lu mel ni daara aji Binta Thiaw lu mel ni daara aji Soda Diop lu mel ni daara soxla Fat Bintu Diop lu mel ni daara soxla Umu Xayri yooyu yëpp nekk ay daara yoo xam ne seydul istighfar yi xam naa ne ñu bëri dañ naan wala nga dem ci xisnul muslim wala nga dugg si internet bi la nga seetaane woon lu xaraam wala la nga seetaane woon der yu ñuy yàq ku mel nit tey dem Facebook bind loolu nga dem ko ci sang yi istighfar yi moo ëpp doole kon mbokk yi xam ngeen ne waxtaan wi jël la ak nangu kon ligne yaa ngi noonu ubbi nañ ko may nuyu kaaw euh, ci Tëngéej xam ma di Ñaan ak soxnaam ñaari aysatu yi aysatu ba nekk Xayralaaw ak aysatu bi nekk Tëngéej Adja Binte Diallo ñoom ñoom ñëpp ma leen di nuyu di leen ziyaara waaye nag di jël nuyoo bi gën a mag bala ñoo commencé téléphone yi jox ko sama yaay Ndey Marème Jong waaw am na ku nekk si ligne bi waaw waaw waa kay asalaamaaleykum ku nekk si ligne bi ñoo ngi lay xaar di la déglu dafa dem waaw kon daal euh, bokk na ci tamit ci li nga xam ne moom laa leen doon wax rek ci nga nekk ci zimma tëddlaahi ak kóoluteem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku nekk faqad faaza fawzan aziman fi dunya wal axira yow bu fekkee ne yàlla assuré na la sa bëccëg assuré la sa demu a dugg àjjana assuré la macha allahu taala ginnaaw julli gu nekk saydul istighfar ak ayatul kursi mu des nag nga ne waaw xanaa foofu rek la bi di yem mu ne déedéet nañ lay assuré itam nga muslu ci seytaan asalaamualeykum mbokk mi. asalaamualeykum. waaleykum waaw. maa ngi ziar kooku kan la. man la man kin Fatou Kiné. Fatou Kiné ban. Touba. soxna Fatou Kiné maa ngi lay ziar naka mbokki Touba. oh là là Fatou Kiné euh, macha allahu taala jëm na may nuyu sama bébé Khady Diaw maam Khady Diaw nekk fii ci cité Comico mu nekkoon doon def anniversaire de rëmbam yaa Khady Diaw maa ngi lay nuyu di nuyu waawakaam yépp yëpp maam Khady Diaw. maa ngi lay ziar cité comico wakaam eh, yàlla na la yàlla may at yu bëree bëri salaamaaleykum wa rahmatullahi mbokk asalaamualeykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah mbokk maa ngi lay dégg aleykum salaam mamaa na ngeen ñoo ngi sant yàlla bu baax doo xaw a sori tuuti télé bi. waaw dama ko wàññi waaw da wàññi télé bi carrément pour déggoo bi mën a neex. waaw. asalaamualeykum. incha bi jéggalu. waa kay jërëjëf yal nañu yàlla boole jéggal. di baal ak ñu jëlal baal. yal nañu yàlla boole baal jërëjëf yaa baax. waxtaan wi rafet na trop. waa kay yal nañu yàlla boole yiw bi. yal na yàlla mottali lépp si daal ji am sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëfati waxtaan wi neexoon te du noonu de ngeen di waxtaan lu baax na si jigéen ñi. wallaay ndeysaan jërëjëf. waxatuma góor ñi Souleymane Diaw ji Daxaar. noo tudd tuur bi ak fooy wootee. Souleymane Diaw ji Daxaar. ah Souleymane Diaw. ji Daxaar. waaw. Souleymane ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar. maa ngi leen di fay baax a baax a baax. kontaan nañu bu baax a baax a baax Diaw. maa gën a kontaan trop. yàlla la yàlla fay te yàlla may la gudd fan gu ànd ak wér. Ah, loo ñu mën a dolli ci waxtaan bi. dolli ci waxtaan bi ah li ngay wax day ay yi xam ni ku si ku si topp daa jàll. waawoo jaw fara. ku si topp nag. xamoo ci moom dara. oh Alaaji Souleymane Diaw ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar. waaw salaamaaleykum. waaw bisimilah mbokk exil. Hmm. asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. waa soxna si tur bi ak fooy woote. man maa ngi fii Cité Nations Unies. Cité Nations Unies. sama xarit yu baax yooyu maa ngi leen di ziar. yal na yàlla nangu ziar bi ziar nañ la. maa ngi ziar ñoom soxna na ba ñëpp ak waa jàkka ji. waaw kay ziar nañ la ren suñu conférence bi ba léegi looloo tax. da ba ma la soppee gaa yàgg na. wallaay ndeysaan. mais ren nag dafa ëppati. wallaay ndeysaan. ren léegi nag ma toog nii di déglu sa waxtaanu tey bi. waaw macha allah neex na trop trop trop. wallaay jërëjëf. waaw doon la ziar ne la dégg naa ko di la jaajëfal. jërëjëf. bu ñu fàtte ci ñaan duñu la fàtte. déedéet du ñu fàttante mukk bokk na sax ci assurance yi. waaw jullit ñaanal mbokkum jullitam. waaw parce que képp koo xam ne bëgg nga loo ñaan yàlla mu nangu. Mhm. deel faral di ñaanal jullit ñi. assurance bu wóor la. te ki ko wax du wax ci neen mooy Seyduna Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf kon ku bëgg sa ñaan di nangu rek deel ñaanal. sa mbokkum jullit susu nag boo xamee soxlaam dernier kii bi nga wax daal laa xamul waa istigfaar bi waaw mais wax laaj naa sama benn mbokk séeréer léegi waaw nee am na ko xam nga xam nga séeréer yi léegi dañ ñoo bëgg a nax xam naa ndey mbeng ngi bëgg a rey boppam waaye séeréer yi ñoom <laughs> yàggu ñu cee dugg lu ngeen def nag ba séeréer di leen ko njëkk a mën na tey de te tuubeen la kat te tey nee na dina ma ko jox jërëjëf soxna si alhamdulilahi rabbil alamina merci beaucoup waa kay jëf waaye soxna si ñoo ngi ziar cité Nations Unies yëpp may nuyu sama sœur sama sama xarit soxna Zeynabu Ba yaayu Cheikh mbay ak ñoom day koo ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar ñooñu côté boobu lañ dëkkee di nuyu waa Cité Nas di ni ñoom Ndeye Mbaye bàyyiwuma kenn waa salaamualeykum mbokk mi. waaleykum salaam <laughs> waa kooku. waa man la Fama Seck HLM Grand Médine. Adja Fama Seck. waaw kontaan na. maa ngi lay ziar bu baax Seck. waaw ñu ngi delloo ziar alhamdulilah. naka waa HLM Grand Médine. waa ñu ngi fi ñu ngi fi ñu ngi déggee bu baax. mbaa yéen a ngi si jàmm. ñu ngi yéen dem ngeen ci assureur bi mu assuré leen. non macha allah macha allah tey moom gindi nga ñu bu baax a baax a baax. alhamdulilah yàlla yàgg. ayatul ayatul kursi bi baax na lool macha allah. waa ayatul kursi affaire la de. ah macha te te te loolu mooy ci kaw rek mais yi nekk ci biir nag moom kenn mënu la koo wax. macha allah macha allah. Mhm. ayatul kursi yu ji nit ku nekk na ko gànnaayoo ci biir këram. dëgg la léeg-léeg nga dem fay ay millions ci biti fekk ayatul kursi rek mënoon naa faj li nga soxla yépp dëgg la dëgg la dëgg la njaboot ju nekk amul droit nekk ak njabootam wala jigéen di seeg boroom këram wala góor di takk soxna te mokkalul ayatul kursi yi wóorul. dëgg macha allah ni mu lay maa ngi nuyu waa Grand Médine yëpp waay jërëjëf Adja Fama Seck Grand Médine may nuyu soxna Adja Aïda Mbène ak euh, docteur mbay ak Ndiaye ñëpp di nuyu waa Grand Médine sama xarit yooyu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waa mbokk mi maa ngi lay fay tur bi ak fooy wootee. maa ngi wootee noo tudd. maa ngi tudd Ndeye Guèye. waaw waaw. waaw yow sama tante Ndeye Guèye la tudd kon yow sama tànt nga. ah waxtaan kontaan naa ci trop ñoo ngi lay ziyaare bu baax di ziyaare waa Tiwaawan yëpp rawatina suñu xalifa bu baax boobu suñu papa Abdoul Aziz Amine trop trop kontaan nañu ñun tamit naka nga defak ak Seydul Istighfar bi mbaar mokkal nga ko waaw mokkal naa ko ah xam nga waa Tiwaawan moom yooyu moom ñëpp ko mokkal waaw ma wax loolu moo ma tëdd rek gis waxtaan bi rek bu neex ma lool. jërëjëf ñaan yàlla na fan bi gudd. amiin amiin yaa rabbal aalamiina. te yàlla may la xéewal bu bëree bëri ndax lii day yee julli ji lu bëri. wallaay kontaan nañu trop ñun tamit. waa kay jërëjëf. waa kay dinañ dem itam ci assurance boo buggee assurer sa njaboot. am na soo buggee assure sa alal. am na soo buggee assure sa digganteeg sa boroom kër. benn assurance daal laay wër gisaguma ko mooy soo bëggulee wujj boobu moom maa ngi koy ah, wër mais xam naa ne am na fu mu làqu quelque part <laughs> xam naa boobu nag jigéen ñi moom xam naa yu numéro téléphone bi tey dina metti <laughs> jërëjëf soxna Ndeye Guèye maa ngi lay nuyu di nuyu waati waa woon yëpp ndeysaan di nuyu sama famille bi nekk foofu famille Alaaji du Diop Khalil di nuyu ñoom Ami Collé Diop ñoom Pape Diop ca Mauritanie seen yaay Ndey Guèye ndeysaan yàlla na ko yàlla yéegi àjjana ya gën a kawe di nuyu sama doomu bopp nag Ndey Xadi Ndey Xadi bu ba dara Diop maa ngi koy nuyu ak boroom këram foofu ci Tiwaawoon di ko ziyaar bu baax a baax a baax sama doom jooju may bàjjinam su ko defee ki nekk si ligne bi bismillah allo ñuy jégalu bu baax nag léeg-léeg am ku ma ne. soxna Faat Bintu def naa 10 000 waaye jotuma la ñoo ngi jéggalu nag bu doon suñu sago ko woote jot bismillah allo asalaamaaleykum aleykum salaam waaw mbokk mi tur bi ak fooy woote man la Kumba Fall di wootee maa ngi soxla soxna Faat Bintu waaw léegi soxna Faat Bintu ngay waxanteel day wax ak kenn. waaw ma ne soxna Faat Bintu mooy waxanteeg yow man maa la fay nuyu. mooy waxanteeg man nii. waaw soxna Faat Bintu Diop. soxna si na def. xanaa sant yàlla bu baax ak di kontaan si yow. Diop Diop. Fall. sant yàlla alhamdulilah. soxna si sopp naa la trop. maa la gën a sopp Fall Njaga Yaaram. di kontaan si yow tout temps damay seetaan sa émission. wallaay ndeysaan yaa baax. maa ngi door a dugg nag tey télévision di ndey saan yàlla na la yàlla fay. amiin amiin li ngay wax neex na. wallaay saan loolu la loolu mooy waxu yàlla ak yonantaam bi. sallallahu alayhi wa sallam ngay wax moom ku nekk dina ci jëlee dina ci jëlee mbégte jëlee ci say sa borom. wallaay loolu la yàlla santaane jërëjëf. waaw léegi nag xam naa ne moom sa numéro bëgg naa ko parce que maa ngi dëkk ak sax sa rakk bi. waaw xam xaw nañu solo mais dafa dëkkoon a sama benn mag Fatou Diop. ah Fatou Diop Mbour. waaw. waaw kooku sama rakk la bokk ndey ak Baye Faat ma madame Sow maa ngi koy nuyu di ko ziar. <laughs> moo topp si man ah mais moom oustaz la mais dafay nëbbatu rek. moom oustaz la nag gis nga yi ma jàng yëpp jàng na ko mais nag moom daal xam naa moo ma gën a sedd rek. <laughs> wax naa ko ba sonn na ubbi daara mu bañ. ah dafa sedd nag moom moom maa ko gën a yaru nag waaye. <laughs> waaw nuyul ma ko bu baax moom nag yi ma ñaan yi ma fiy joxe yëpp moom mokkal na ko te mën na leen koo jàngal wax naa leen am eh, eh, xam-xam yëpp nañu ubbi ay daara di jàngal jigéen ñi sa numéro waaw moom dina la ko jox wala waaris yi léegi incha allahu taala bul coupé euh, ñoom sëriñ Babacar ak ñoom vie ngi foofu dinañ la ko jox léegi macha allahu taala mm. jërëjëf Adja Kumba Fall ca Mbour may nuyu Adja Ami Ndoy Adja Ami Fay ñoom euh, Mamadou Sy famille Amadou si yëpp Mbour maa ngi leen di nuyu di leen ziar bisimilah ki si ligne bi asalaamualeykum waaw kooku dem na comme li ñu doon wax rek macha allahu taala Adja Ndeye Mariam Jongu Adja Degen Fall Adja Degen moom tamit oustaz la bu sa suñu tonto Ibrahima Fall moom it euh, istighfar yi may jàngale nii yëpp seydil istighfar yi am nañ ko nee naa leen am na assurance pour sa doom pour sa njaboot. am na loo xam ne boo ko waxee assuré nga njaboot gi am na assurance boo xam ne macha allahu taala mooy pour boo xamee ne yaa ngi dem tëdd sa kawlal di nelaw am nga looy assuré sa bopp ak sa njaboot ba bër sët boo tëjulee sa buntu kër sax kenn du fa dugg te loolu jar naa am ndax dëkk bi léegi matal macha allah insécurité daf fee bëri te insécurité boobu yëpp am na loo xam ne ah alhamdulilahi rabbil alamin waxuma la nag baat yi kese dafay am lu li koy laytaay nag mooy julli juróom yi ba pare li ko laytaay mooy xam yàlla borom bi subhanahu wa taala xanaa sax di nga ma ne xam yàlla moom jafe na waaye jafewul mooy nga xam arkaanul islaam yi li ko laytaay mooy nga xam li ngay jullee sellal ko yow ci sa bopp nga sell parce que bu fekkee ne cellte gi nga war a am defoo ko soo ñaanee yàlla dafay préférer baal la bàkkaar yi te ajo bi du faju soo assuré yi tamit dafay euh, préférer di la jéggal yooyu nga defoon waaye assurance bi du ko appliquer ci yow kon ndekete appli application bi mu ngi mën a am ci te itam am na bu si gën a garaaw mooy at aminu alal qabr nga assuré sa sa bàmmeel bala ngaa dem nga xam ne lii ma lay wax yonent bi sallallahu alayhi wa nee na képp ku bëgg a assuré bàmmeelam ba nga xam ne bu ci duggee du gis benn mbugal du gis dara malaaka yooyu di yone bolde yooyu yooyu macha allahu taala yépp ñuy melal yow doo ko gis assureur boobu nee na bu fekkee da nga bëgg a assuré ñëwal ci man ma jox la soratul mulk mbokki jullit yi képp koo xam ne bëgg nga assuré sa bàmmeel assurance bi mooy soratul mulk mooy almunjiya min azabil qabri mooy aar nit ki ba bu duggee bàmmeel buñ la suulee dem dellu malaaka yi ñëw yow assuré nga foofu directement àjjana lañ lay branché mooy tabaraka allazi bi yadihi l mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir xam naa soxna Aïcha an yow mi nga xam ne ñow dañ lay wax borom mulk yow moom santal yàlla kon ndekete nit ku nekk su xëyee wala bu guddee balaa yeew bu buggee assuré bàmmeelam fay gi mooy jàng soratul mulk ba mu jeex kon nag ku ko mokkalul woon na nga gaawantu wut ku la ko jàngal nga mokkal ko ndax kat mbokk yi dégg fi mu nekk macha allahu taala dafa takkar naase kon ndekete wóorul ngay assurer sa oto ndax accident di assurer say bijoux yóbbu ko ca banque ba te assurer woo fi nga xam ne yooyu yëpp danga koy bàyyi ginnaaw dem tëddi foofu macha allahu taala bisimillahi mbokk salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo mbokk mi tur bi ak fooy woote. damay leb tur bi. waaye lebal naa la ko. waaw dafa am benn kii boo def bu ma neex trop ma ni woon du ma rester insensible ci loolu. waa bisimilah parce que danañu ñu nu jiite li tax ñu fal leen. waaw. mooy ñu régler ma suñuy problème courage bi nga am di wax loolu laa bëgg ñuy yeete yëpp di ko wax. dëgg la. parce que teesante yi. Mhm. ak wax yu kii yëpp dafay tardeel Sénégal. wallaay amuñu jotam. te yéen ay porteur de voix ngeen. Mhm. te seen waxtaan toujours. Mhm. dañ koy teewlu parce que ci yàlla la jëm. wallaay yàlla rek a tax ñu koy wax. bëggoon naa aussi. sama xalaatu bopp. ñuy waxtaan diggante nit ak dee. fi nga daaneele. dëgg la ak nit. ak mbugalu borom yi ko mën fekki kalla isa dukkatul ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku safan safan safane eh, waaye xanaa yow yaa ngi dawal sama yaram wa ji a yowma isin bi jahannam lahu zikre akbar waaw parce que ñu ngi léegi ragalatuñu yàlla parce que amatuñu waxtaan boobu déedéet ñun bi ñuy jàll alxuraan ndar dañuy mhm. xamal suñu borom mooy kan nan lañ ko war a ragale ba mhm. pare wax ñu lan mooy ngëneel yi ngay am boo ko ragalee bénéfice yi bien que moom mooy raufun rahim moom mooy baal ku ko neex. Mhm. mais nag boo ko ragalee ba pare am fitu di def yenn yi man damay am problème. waaw bu boobaa ragal gi dafay dàqu. waaw parce que man daal bëgg naa ñuy waxtaane loolu xale yi surtout ñu leen di éduquer ni suñu borom day mbugalee ëllëg. waaw sadidul iqaabi mbugalam sax nag dafa tar. parce que du ñu waxtaanee ci lu baax même ay ci télé yi. Mhm. pour ñu ñu ni tey dañuy waxtaan lu baax amatul. mais yow miy def toujours. bëgg naa ñuy dellu ci nit ñi suñu borom di waxtaan lu baax di waxtaan mbugal yi parce que ñuy def émission wu kii yëpp ay waxtaanu safaan rek la waxtaan mais lu baax la ñuy waxtaanee ñu mhm. di ko bi ci dund lu bon dañ koy nëbb waaw waa man loolu laa xalaatoon quoi man woon tey na waa télé bi la nag bëgguma wax sama tur waaw mais ñi xam ne sama voix daanu xam kan la <laughs> kontaan nañu <laughs> li mu wax am na solo macha allahu taala jërëjëf jazakallahu anna xayral ay wasalaamaaleykum mbokk. waa bisimilahi mbokk. waaw ah, Adja Fatou Bintou. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. man la Saadiya waay Halimatu Saadiya <laughs> nampal Seyduna Muhammad. dëkk benn tali. ah soxna Halimatu Saadiya maa ngi lay ziar di ziar ñaari tali benn tali. kañ kañ am ñetti tali nag. Ah? kañ la am ñetti tali. xanaa nag ñetti tari bi moom bu boobaa Seydouna Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam lañ koy bu Seydouna Mouhamed màggee ba nekk président de la république defalal ñu ko. <laughs> Halimatu Saadiya ñoo ngi lay nuyu di la ziar. non man dama kontaan vraiment. waa jërëjëf alhamdulilah sama sœur léegi sama teg moo génn ci ligne bi ma séddale dafa ma ko wootee rek comme man nag maa dañ ñoo neex. wallaay ndeysaan bi lañ bokk. waaw yéen kay moom moom ñun ñoo far. waaw ñoo far nag. mais ayatul kursi bi man man li tax ma ko jàpp avant nga koy mooy dama gént rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Ah, bi ma ah. ko géntee. waaw yow. Mhm. comprendre nga. waaw tiit bay tari ayatul kursi. allahu akbar. que jour boobu sama xel moo nekk ci moom. allahu akbar dafa réception ñëw. Mhm. daal di jàpp ba set. Mhm. daal di tëdd. mais nag euh, soxna Fatou bi li ma gën a jaaxal mooy xam naa ne ku bëgg ko bëgg a gént ku ne il faut nga fanaandoo njàpp. waaw ku bëgg a gis Seydina Mouhamed moom il faut nga set. jour boobu dama jàpp ba pare daal di këdd di ko xalaat nii rek ba gént ko. ñu nekk monde boo xam ne nag soxna si kenn xamul fu ne. allahu akbar maa ngi dend ak benn paa nii si bi ngi taxaw ñu jékki-jékki génn ci écran géant leer googu ba mu juddoo ba tey mosuma ko gis. allahu akbar allahu nuru samaawaati wal ard tari ayatul kursi ba ni may yeewoo. allahu akbar moo tax ayatul saa ma jullee ba pare. Hmm. vingt fois laa koy def def sallaxi def naas def salaat. ah yow de bu yàggee ñun ñi sëriñ si dootuñu amati xaalis de yow yow li ngay wax nii bu yàggee kenn dootul ñëw di ñaan lu si ñun de. <laughs> <laughs> waaye waaye waaye soxna Alimatu loolu moom jigéen ñëpp war nañ koo xam. waaw war nañ ko xam billaay bu ñu mokkaloon ayatul kursi yi dootuñu dem ci gisaane ñu leen di nax. jaru ko sax képp ku lay tëkk wala mu lay. wala mu tëkk wala mu lay mu lay muy jël ay sëngu fakki reen yow yow saxool ayatul kursi yi. boo ma tëkkoo man la tawal xel doo dara. ay gisaane ak sëriñ ay détail la lu dul yi yàlla du dëgg. lu mu lay wax nga dëgg Halima. yàlla moo ko yor mooy maye. mooy wala yàlla ko yor ak ngaa wax dëgg. jarul iñaan nañ gëm yàlla mais sénégalais nag. Hmm. dañoo gëm yàlla wóolu ko. Hmm, ndax jullit waru soxor waru iñaan mais li ma li ma li ma fi gis. ngay hmm. jullit it war nañu xoolaat suñu bopp. suñu ah, xol yi il est temps xol yi set. raxas xol yi raxas jullit nga sa xol dafa war li nga yéene sa bopp yéene ko sa moroom loolu daal laa gis. wallaay jërëjëf jéem daal ku nekk jéem. xam nekk ay jullit. wallaay ndeysaan. waaw kontaan naa trop. wallaay ndeysaan eh, soxna Alimatu. Eh, kontaan nañu foofu si ñaari ta benn tali ñu koy ziar bu baax di ziare ñoom Adja Yakumba Senghor Angleterre ñoom Adja Oumy Diouf. ñoo ñëpp ñu ngi yónnee ay message macha allahu taala ñoom Ami Diouf mënuñoo dugg ñoom Umu Salaam ñoom Adja Kine Sey macha allahu taala ñoom euh, Adja Aram sàmb maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar xam naa kontaan nga waaye maa la gën a kontaan al isharatu nag tag fii su ko defee mooy loolu rek lii soxna Alimatu Saadiya wax ne gis na yonante bi sallallahu alayhi wa te képp gis yonante bi sallallahu alayhi wa ci gént xamal ne gis nga ko dëgg-dëgg ndax nee na moom seytaan du ko meloo waa mbokk mi bisimilah. soxna na yàlla nangu ziar. ana a ngi si jàmm alhamdulilah. ñu ngi rafetlu jërëjëf tur fooy wootee. man Cheikh Ndiaye laa ah Cheikh ma defe ne Cheikh Diop nga sant. noonu Ndiaye moo dàq. <laughs> Alaaji Cheikh Ndiaye ñoo ngi lay ziar bu baax waaye Ndiaye jaata Ndiaye. ñu delloo wallaay dëgg la jërëjëf. jëf ngi doo yëkkati kàddu gi tuuti xanaa ndekkee goo. ndekki naa sax. ah kon na yëkkatil kàddu bu góor góor buy wax day riir. <laughs> xam nga dañu wallaahi ñu ngi yàlla nañu ko yàlla boole njaay Diatta. amiin jërëjëf. waa kay jërëjëf El Hadj Cheikh may nuyu njaayeen yëpp rawatina nag Cheikh Ahmed Tidiane yëpp xalifa yi tudd noonu yëpp ak suñu cheikhu bopp yi ñu leen di nuyu di leen ziar euh, jërëjëf njaay bisimilah. waaw bisimilah ah baa ngi noonu rek Adja Ndeye Mariam Jongu. moom laa nekkoon ci moom di ko nuyu di ko ziyaar ak fameem macha allahu taala ak ay njabootam aji faatu maa ngi leen di nuyu ak waa këram yëpp macha allahu taala ñoom tonton Moustapha Jong waaw bismillah macha allah mbokk mi. waaleykum waaw ñoo ngi lay ziyaar bu baax tur bi ak fooy wootee alxaaji. maa ngi sant yàlla bu baax. tur nag dama koy leb. waaw lebal naa la ko si xol bu sedd guy. maa ngi sant yàlla. wallaay bisimilah. di kontaan yàlla nañ ko yàlla boole. di ñaan ñëpp borom kër yëpp. Mm-hmm. di seetaan tey émission. wallaay ndeysaan. buñ koy seetaanee moom daan daan daanaka dinañ defar njaboot. dëgg la dëgg la. te bu ñuy déglu bu ñuy déglu lépp lépp dafa xam ne lépp. waa sëñ bi de kàddu gi fii dafa xaw a kii walla man xaw ma sama retour la. Ah, Alaaji doo wàññi télé bi tuuti. ah dem na. kon nag moom ndeysaan macha allahu taala ñuy ñaan rek euh, téléspectateurs yi bu ñuy wootee ñu xaw a wàññi seen télé ndax ci la dégg bi di gën a neex te yéen tamit seen wax dafa am solo. ndax waxoon nañ leen ne waxtaan wii ñu leen di defal joxe la ak nangu mbokk mi bisimilah. asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Eh, Adja Fat man maa ngi tudd Ami maa ngi lay woowee France. waaw euh, di la gërëm di la sant ci émission bi di la gërëm di la sant ci ni ngay ginne gindee doomu aadama yi. jërëjëf Sow Poulo borom nag meew euh, yi weesu loolu. Mhm. ñun fii yàlla daf ñu baaxe mhm. lu tax yàlla baaxe ñu dafa am benn ustaas boo xamante ni. Mhm. moom àddinaam yëpp yëpp yëpp pour xamle la. ndeysaan macha allah wax dëgg neex yàlla ñun ñu ngi fii di liggéey di daan suñu doole. Mm-hmm. mais daf ñu ubbil daara. ah macha allah. fi ñu ubbilee daara di ñu jàngal mu ngi tudd euh, oustaz Mouhamad Diallo Mouhamadou Diallo. Mouhamadou Diallo Mouhamadou Rasulullah. waaw ca Trap. ay waaye Mouhamed Diallo yal na ko yàlla may gudd fan te mu suturaloo fan amiin amiin waxtaan wax dëgg Diallo ñun xamuñu woon dara dara dara. ndeysaan juróomi at a ngi nii. mu mm-hmm. nekk ci te vraiment duñu laaj dara allahu akbar lii ngay wax lii lépp moo ñu ko jàngal alhamdulilahi rabbil alamin ñu ñuy jullee ñu mm-hmm. ñuy ja lépp lax dareet lépp moo ñu koy jàngal macha allah man munuma woon bind macha mm-hmm. allah tey ngir yàlla ak jëmmam mën naa bind wallaay naa liir lépp ngir yàlla ak jëmmam Eh, waaye na ko yàlla may fan bu gudd. jigéen ñi foofu dañoo farlu. dëgg la dëgg la dëgg la yéen waa France jàmbaar ngeen. Mhm. ci daara ji. wallaay dëgg la dëgg la loolu nag ñu koy sant yàlla. Mhm. di ko ko sant di ko gërëm. jërëjëf. waaw ñun saa mhm. pare. di nga def faatiya ak salaatul faatiya ak juróom-ñaari ayatul kursi. lépp nag. moom moo ñu ko jàngal. ngeen ñaanal seen bopp ñaanal àdduna bi ñaanal duli nëpp fu ñu nekk ko jàngal. naka def pour seen njaboot. Mm. Euh, euh, pour aar leen. Mm-hmm. nag ñëpp ñun ñu koy bind di ko jàng. assurance su aar njaboot bi ak booy dugg ci marché yeeg booy dugg ci oto yeeg yooyu yëpp xam nga am na. loolu il fa que ma wax ko. wallaay dëgg la sow pour yaa baax. waaw ndax nit koo xamante ni danga jàng. Mm-hmm. ñëw ba France. yan fan ngeen nekk ci France. ñun ñu ngi Euh, ndax su ko defee ñu bëri ñuy ñuy yónnee di laaj su ko defee ñu mën a dem ci moom di dem ci daaraam jooju di jàngi adresse bi. wax dëgg yàlla oo ñun de ñun macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di ko gërëm te di ko sant. waaw xam naa nag dina baax seen adresse boobu ak seen numéro téléphone. ngeen jàllale ko si internet beeg yëpp ak wala ngeen yónnee ko sax fii GFM su ko defee nit ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ci environnement boobu yëpp mën a dem foofu di sàkku si xam-xam parce que waa France ah, soxla nañ ko te ñu bëree ngi ci daal daara yi gaa bëri na waaye doyagul waaw commencé la ko trap euh, uh-huh. Moropa ñun ñëpp fa la ñuy jànge macha allahu taala hmm. ban métro boo jógee Paris ban métro ngay jël elles ma ne ban métro ngay jël boo jógee Paris bëgg a ñëw foofu jàng si. déedéet doo jël métro yaa waaw da ngay dem ba Montparnasse. ah waaw Montparnasse moo lay ah, am naa nag sama benn am naa fa sama benn bëkk néeg Jeewo Njaay. Jeewo Njaay kon dégg nga léegi amatoo droit bañ a bañ kii parce que bëkk néeg dafa war a ah. mokkal. Adja Jeewo Njaay ñoom ñëpp ak ñoom Abi Diallo porte d'Italie ñoom ñëpp nañu jàng si. macha allah Ami Sow kontaan nañu yàlla na la yàlla fay euh, Ami Sow macha allah nekk France dégg ngeen loolu mu wax ci oustaz Mouhamed Diallo ah Mouhamed Diallo yàlla na la yàlla fay te nee na du fayeeku dara. kon nag euh, mu ngoogu macha allahu taala ñi nekk bitim réew moom jàmbaar lañu ñoom maalaw gis nga seen daara ji nekk foofu oustaz Pape An xam na li may wax ñoom Adja Asfal ñoomit it am nañu daara ñoom Binta Mamma euh, macha allahu taala mbokk mi bisimilah. allo salaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum. ah soxna si waxal bu baax xanaa ndekkeegoo. ah maa ngi wax bu baax de soxna si yaay booy. yaa ngi wax bu baax te man dégguma la. maa ngi wax bu baax de yaay booy. <laughs> kon nag kontaan naa léegi maa ngi lay dégg bu baax aywa bisimilah. bis. ma ne dama laa bëgg. ay eh, waay waaye yéen xam ngeen ne ñun il faut que ñu bëggante ndax ñun ñoo bokk fu ñu jëm wallaay da ma maa neex wallaay saan jërëjëf waay nee ne tuuti waaw man nag euh, daa am lu may laajte waa bismillah man benn baraag laa dëkk waaw man nag li ci ëpp damay gént ma tëddee damay gént di jàng alxuraan waa léegi da ngay wax si kaw parce que question bi dégguma la bu baax de damay tëdd waaw di gént di jàng alxuraan alhamdulillah di jàng daal dem si jàkk yi di jàng di muuru te bi ci mujj sëñ Saaliw laa gént. sëñ Saaliw radiyallahu taala anhu ah gént nga ko màgg. Mm, tariloon na ma nag benn saar mais dama koo fàtte. xam nga man dama doon jàng alxuraan. Mhm. bàyyi léegi nag heure bu ma tëddee nag loolu laay gént. léegi yaa ngi jàng alxuraan ba tey wala da ngaa bàyyi. instant yi dama arrêté woon mais heure bu ma tëddee dama koy gént. Ah. kon kon sëñ Saliou nee la la amoo droit bàyyi parce que comme fàtte nga saar bi. Uh-huh. waaye saar bi kon li wóor moo dina baqara ba naa si saar baa ngi ci biir. Ah, kon yow boo mënee baqara ba naa si rek di nga fàttaliku saar bi nga xam ne moo taxoon sëriñ saaliwu di la wax dina ko tariloo. waaw incha allah kon naa commencé. na nga commencé waat. dinaa commencé waat nga commencé waat yow amatoo droit bañ a jàng alquran. incha allah. yàlla na nga eggaleeg jàmm ak salaam. waa ngay ñaanal Serigne Saliou bu baax a baax a baax. incha allah incha allah jërëjëf jërëjëf kontaan nañu mbaa yaa ngi muuru. waa instant ah, baax na daal. <laughs> muuru waa dinaa na nag ku jàng alquran moom il faut que da ngay muuru <laughs> muuraay bi nag ci la bokk ndax yàlla ko santaane. waaw dinaa ko santaane du aada naar du dara mais yàlla moo wax jigéenu jullit ñi. Uh-huh. ak doom yi ak yonent bi. say doom ak say soxna ak jigéenu jullit yi nañu muuru dañoo defee ne muuru aada la waaye muuru du aada yàlla moo ko santaane yaay booy kon jigéenu jullit bu nekk buy génn dafa war a muuru uh-huh. aha jërëjëf kontaan naa waa kay waaw yow sa kaw sa kanam rek inshallah borom alquran moom ca kaw ca kanam rek dara du la detteel dangay dem kenn mënu laa ah, yàlla nga egg ak jàmm ak salaam alhamdulillahi rabbil alamin kon nag euh, gis ngeen mooy loolu rek suñu doom jooju nga xam ne gis na Serigne Saliou mu koy tariloo alquran loolu mooy Serigne Saliou joxe na ndigal ci ñëpp rek ñu jàng alquran comme na mu ko doon defee ba mu nekkee ci kaw suuf bu ñu nekkee ci biir ndeysaan macha allahu taala soo gisee ñooñu li nga loo leen gisee rek loolu mooy dëgg ndax ñi dem àllaaxira ñi nekk barzaq luñ la wax rek dëgg la kon amatoo droit bañ a jàng ak ñun ñëpp sax kenn amatul droit bañ a jàng alquran bismillah. mun nañ tëj waaw kon bu ko defee macha allahu taala euh, assurance yaa ngoog nee naa leen am na assurance pour kër am na assurance pour njaboot gi am na assurance pour ramm yonent bi sallallahu alayhi wa sallama assurance su bàmmeel jox naa leen ko mooy soratul mulk boobu laa joxe tey yeneen waxtaan yi ñëw dinaa leen jox assureur ni ngay assurer sa njaboot ba dara du leen laar même doom ju jigéen ji sax am na noo koy bu juddoo rek noo koy assurer ba benn saay-saay du egsi ci moom doom yu góor ñi itam macha allahu taala lu ñu duggit dinañ ci génn dellu siwaat ci ni nga ko bëggee assureeru sax sa njaboot di muuru dafa am ndax bari na njaboot goo xam ne bëgg nañoo dund sunna te mu tëleen kon mbokk yi daal te yàlla li mu waxoon rek maa farat naa fil kitaabi min shay'in kon ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara may gën a assuré waat sama sama sama sama kóllëre ak sama yaay yi Adja Kumba Waly Diagne Adja nag dafa jogati tey gis ngeen noir et bu jekk bi macha allahu taala soxna Ndeye Marème moo fi jaar may wax rek waa ji nga xam ne mu nga ca France yore sama bagage yooyu nga xam ne sama yére yëpp a ngi ci conteneur bi maa ngi koy xaar ba léegi na ma jox sama ay yére waay Adja Ndeye Marème nag loolu la dégg nit ñi di joxe benn moom mu joxe armoire lu si bataan ba mu fees kontaan Ndeye Marème maa ngi lay wax yàlla mi nga xam ne. loo ko lebal benn mu fay la yàlla na la fay ay milliards yi milliards yi milliards yi milliards yàgg sa njaboot ñoo ñëpp dinañ leen jàllale incha allah taala ku déggul turam tey maa ngi jéggalu xam ne yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan suñu euh, gan yi ñëw yàlla nañ fi nekk ak jàmm ak salaam ñibbeeg jàmm ak salaam di wax suñu autorité yi rek ñoo ngi leen di bàyyiloo xel ne réew mi daal li ñu soxla si ñoom mooy ñu juboo nekk benn bàyyi yërëm doom doom déggal bàyyi ñu boole ni président ab Ablaye waat doon wax naan Macky sama doom nga Macky di wax Euh, Ablaye Wade sama papa nga ñun daal loolu la ñu soxla waaye soxlawuñu geer contre papa ak doom yàlla na yàlla sotti foofu ndox mu sedd guy guy guy guy guy yàlla indi jàmm ci réew mi maa ngi leen di dénk yàlla mi nga xam ne macha allahu taala ku mu yoreel sa dénkaane kenn du ko du ko sànk di ñaanal ñëpp di nuyu kaaw nag ak njabootam di nuyu waa Sénégal yëpp ak waa bitim réew di wax wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu أعوذ بالله من الشيطان لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له